bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum fu waay mën féete ci àdduna bi ñu ngi lay dalal ci sa émission wareef ci télé euh, télévision Futur Média di kontaan rek ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ñuy féete anniversaire bi nga xam ne ñoo ko bokk buñ dee xool rajo bi def na fukki at ak juróom-ñaar télé bi nag topp euh, euh, ñaata at ndoy ban fukki at. télé bi def na fukki at ma ngoog bu ko defee ñu kontaan loolu ci ànd biñ ci ànd ak yéen macha allah di leen wax ne mën ngeen a woote ci 88 628 22 22 88 628 04 05 ngir ngeen mën a bokk ci waxtaan wi nga xam ne wàllu mbay la ñuy waxtaanee mbay fii ci Sénégal agriculture Sénégal képp ku nekk ci hôpitaux yi ñu ngi lay bàyyi xel bu baax a baax a baax nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi dugg ci prison yi di nemmeeku ña fa nekk di ñaan yàlla mu fiix féexal leen ku nekk itam ci tiis ñu ngi toog sa wet di la ziyaara di la nemmeeku di la massalu coono ndax àdduna ni mel te lu ne daf fi xew ñuy wax bismillah dalal ajaratu Mami Linguère teg ci ndoy baan tey nag ñu itam gan gu sedd suñu xol muy euh, Modou Fall El Hadj Modou Fall ku xam wàllu mbay ci Sénégal xam ne moom itam daf cay dox pàcc bu am doole macha allah euh, Mami Linguère maa ngi lay nuyu bu baax a baax maa ngi lay fay kon dañuy ñëw rek door nañ daan dooreeti neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar teeg ëllëg sama maam yàlla na mag neen son Mandela tëpp koy jaloore di ziar mboolem kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal sunu soppe ba sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum bi woyof lool ak mboolem sunu xalif généraux yi yaay diggéen yàlla na dëkk soppeem ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam delluwaat rek taxawaat di ñaanalaat sunu rakk yi sunu doom yi nga xamante ne tey ña nga sëgg ca kay di wuti ndam ngir bu ëllëgee ñu mën a bokk ci li doxal réew mi yàlla mi ko yor yàlla na leen ko may ndax dogal na démb tey soog a ñëw mottali ba rek ca wut ñàkk nag du gàcca waaye wut leen rek ba raw looloo gën waaye bu mu tax kenn yóbbu sam xel bu mu tax kenn xaru yàlla mi koy maye yàlla na leen ko yàlla jox di bëgg rek Eva comme li ngay wax tey nag xam naa ne damay damaa indaale ay ay ay tey comme ni ko mag ñi di waxee péngu waaw tey damay péng samay cër pour la ah xam nga ku jàkkaarloog sa nijaay ah waaw waaw xam nga kuñ dalal sa nijaay ñun dalal ah kon ba ma yaroo da ngeen di bëgg. ndoy baan salaamaaleykum. pingu yi ji li tëyal ma leen ba ma pare. macha allah merci euh, mami Linguère. ñu ngi ziar yëpp di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp. di ci jiite sunu sëriñ ba Cheikh baseru Abdoul Khadr. di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak sunu xalifa ba ca Pire sañu ko di. sëriñ Mansour Cissé ak sëriñ Maodo Cissé ak moom parent ji bi Diagne ak Baye Bado Dieng kilifa yi fa ne yëpp ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm di dalal jàmm kii nga xam ne moo di Modou di di di paysan di opérateur di di di di producteur. Mhm. xam naa su ci paree dina présenter bu baax di ziyaaraat baykat yëpp. mangook jërëjëf baan El Hadj Modou Fall ñu ngi lay dalal ak jàmm. Euh. ci émission wareef kontaan lool nag ci waxtaan wi ñu war a bokk ak yow. jërëjëf soxna Eva. Mhm. ñun tam ñu ngi leen di ziyaara bu baax. Mhm. di bëgg trop it ci jataay bi. parce que jataay bi yàgg nañ ko suivre. Euh, xam nañ ni euh, luy doxal mbayum Sénégal moo tax ngeen def émission yi euh, ci njëlbeen nag maa ngi leen di ndokkeel ci seen anniversaire bi. Mhm. di nuyu it borom kër gi. Mhm. Youssou Ndour di ku baax. Mhm. di nuyu sama ministre de l' agriculture tax mooy suñu ministre de tutelle. di nuyu njiitu réew mi président Macky Sall di jaajëfal baykat yëpp di leen tàllal loxo di leen nuyu leen ziar ci émission bi. di bàyyi xel sama mbokk opérateur yi nga xam ni ñooy di gerte yi ci Sénégal te ma jiite leen nekk seen président national ba tax ma ñëw toog fii di wax ci seen tur ak ci seen kàddu kon ñooñu it maa ngi leen di bàyyi xel bu baax waaye nag maa ngi ziare du nuyu sama papa ak sama ak sama ay soxna macha allah ak sama njaboot yëpp ak sama sœur yeeg ñëpp rek macha allah sama mbokk yëpp rek maa ngi leen di ziar di ziar Euh, xalif généraux yi comme ni ngeen ko waxee. Mhm. wax dëgg yàlla lu ji njaaga te ñooy njaag. Mhm. te bu ñuy wax première producteur. mooy xalif généraux yi. kon nag ci ñoom laa bokk man. Mhm. ndax bu ma jiitee lu jëm ci wàllu mbay. te ñoom ñu ràññee leen ci mbay. kon ñoom maa ngi leen di ziar bu baax a baax. di taasu seen barke. dëgg la macha allah kontaan nañu lool dalal nañ fi ku jóge ci waawoon dalal fi ku jóge Pire yow boo doon présenté wu ne fan nga jóge loolu ñuy wax. man maa ngi jóge Tivaouane waaye jóge ci dëkk bu ñuy wax Kër Baaba Sëy Kër Baaba Sëy mu bokk ci commune Tivaouane euh, ku wax Kër Baaba Sëy wax xaali Amar Fall ëtti xaali Amar xaali Amar Fall yi ah, mu nekk mu nekk wenn tund woo xam ne fa la ñu nekk man may porte parole fondation Serigne Pir Xaali Amar Fall nekk président national organisation fondation Serigne Pir Xaali Amar Fall kon loolu it suñu cër la mm-hmm. comme ni ko Ndoye waxee ñu ngi nuyu Euh, Serigne Mansour Cissé ca Pire. Mm-hmm. ak imam Maodo Fall. nga xam ni moo fa toogal. Mm-hmm. fondation Serigne Pire Xale. loolu nag pena la ndaxte. Mm-hmm. penalty waaw penalty dafa def penalty parce que lu toll ni fondation Khary Amadou Fall. mu jiite ko te maa moom bi ñu xamanteeg léegi matul ñetti fan. te ya nga yëngu ci yooyu. bari loolu loolu penalty la. <laughs> ah. ah tiire tiire dugal wala tiire la. a <laughs> waaw waaw. non bàyyi ma ne tiire dugal xam nga tey jii su dul lu toll ni fondation boobu. maa ngi koy doog gis ñaari yoon lañ mos a gisee. ndeysaan ci mu ci semaine bi. waaw xamante wuñu woon sax. dëgg la loolu loolu penalty la may. dugg na nag. dugg na nag tàccu rek a ciy toog nee na la tiire dugal mbaa tiire na tamit tey ñëw tàccu rek pour ñun dugg na. <laughs> nañ tàccu oto day lool. dal nañ ko moom bu doo fi dëkk ku dëkk ñoom dañuy ñam ci biir tuuti ah, waaw gis nga wax ah, génn ca. génn ca télé sama magu na communauté rurale pire. waaw 28 ans ci nga bokk de buñ doon séddale pire faaw dañ lay sédd dañ lay sédd. ñu bëggoon xam casquette yi nga sol dafa dafa bare macha allah ñu ñaan yàlla mu jik la. <laughs> Euh, agriculteur producteur transformateur. ñu doon la laaj euh, mbay mi fan la tollu jamono ji ci Sénégal. boo ci nawet bi fu mu toll. Mm-hmm. walla ci niveau de production mbay niveau bi waaw. waaw fi mu ne de. day ni ñu ne lii le niveau est bon le niveau est faible. waaw loolu nag euh, ni ñu ko mën a defee. Mm-hmm. mooy bu ñu xoolee. Mm-hmm. Euh, ci mbirum gerte. waaw. boo xoolee vingt ans yi ñu passé. avant Macky di ñëw. dix ans yi ko jiitu. benn yoon lañu am un million de tonnes benn yoon. Mm -hmm. euh, 2012 ak léegi ça fait combien d'années. ça fait huit ans juróom-ñetti at. am nañ fi trois fois un million de tonnes. Mhm. xam nga noonu lañ koy seete. waaw waaw waaw. noonu la seete ndax production bi. mi ngi dox mhm. wala mi ngi wàcc. Mhm. donc loolu moom mun naa ko dëggal ci chiffres yi dana ko dëggal. Sénégal yëpp daañu ko dëggal. kon gerte gi wax dëgg yàlla niveau de production bi mi ngi mi ngi mi ngi yéeg mi ngi baax bu dee ci semence certifiée yi la en 2012 ñoo ngi amoon bu ma juumul ci semence certifiée 6000 tonnes à peu près fi mu ne nii ñoo ngi toog ci 55000 tonnes semence certifiée bu ngeen koy expliquer. semence certifiée mooy semence bi nga xam ni. du semence ordinaire du dem huilerie du dem ci usine bi. maanaam jiwu rek lay doon. parce que ay semence yu ñu saytu la. yoo xam ni yu ñu yu ñu yu ñu euh, peeg la ca yu jóge ISRA la xam nga semence certifiée ISRA mooy produire pré-base. Mhm. jox ko opérateur bi wala producteur bi moom mu def base. Mm-hmm. def R1 def R2 mu door a dem huilerie mm-hmm. mu door a jóge certifié mm-hmm. semence yooyu day am doole mooy gën a mën a meññ mooy gën a baax moo tax man la en 2012 ñu ngi woon ci mille tonnes de semence certifiée actuellement ñoo ngi ci 55000 tonnes semence certifiée macha allah mais nag semence certifiée duy taxaw benn place parce que léeg sax ñu bari dañ naan yéen ba ngeen dalee construire capital semencier ba nëgëni mënagu leen koo atteindre pourquoi man leen dañoo maîtriser wul suñu ndox. capital parce que boo maîtriser wul ndox mi. yow ci taw rek nga yaakaar. waaw tey boo ko amee it bu tawul nga ñàkk ko. Mhm. dëgg la. donc moo tax maîtriser wuñ ko mën nañoo am tey cinquante cinq mille tonnes déwén ñu ji cinquante cinq mille tonnes yépp ci suuf nawet bi baaxul nu ñuy def. Mhm. loolu moo tax am na ñoo xam dañuy tëb di tiire ci kaw opérateur yi wala di tiire ci acteurs yi naan. depuis boobu ba léegi mënoo guleen a atteindre euh, euh, capital semencier bi bu dee ni maîtriser sa gaaw a atteindre. problème bi nekk. loolu loolu ban solution ngeen mën a teg. xanaa kay ñu leen dal. ñu ñu ñu maîtriser suñu ndox. waaw mooy fexe ba. Mhm. Euh, am ay forage yu bari ci àll bi. waaw nit ñi di bay noor. di bay nawet. loolu mooy tax li nga jàpp yow gannaaw yow yaa koy roosal sa bopp di nga ko di ko maîtriser. waaye tant que roosee loo ko sa bopp nag doo ko maîtriser. parce que taw bi rek nga yaakaar bu tawul koy koy xulool. parce que taw bi ñetti weer képp lañ ci am. waaw mais ñetti weer yooyu sax. waaw tey day ñëw bu taw. nawet bi yàqu fekk ji nga ba pare. dëgg la la nga ji yàqu ci suuf si. bu boobaa nag ci semence certifiée yooyu loo man def mooy dem produiraat euh, pré-base te pré-base tuuti ngay am di ful di ful di ful ba mu bari pré-base mënul bari. da nga jël benn ton jox ko benn producteur mu ful ko déwén xëy na mu nekk fukki ton déwén jéeg xëy na mu nekk cent tonnes noonu nga koy fule fule fule ba mu dem ordinaire. loolu mooy semence certifiée. bu dee ci niveau fi nawet bi toll nii ñuy wax. wax dëgg yàlla dal na xel. mooy ji nañu sax na euh, sëq na. ñu ngi xaar mi ngi mi ngi mi ngi dox nawet bi mi ngi sori. Mhm. wax dëgg yàlla mi ngi taw bii rek. am ndox la ñu fanaanoo loolu nag ñu ngi ci sant yàlla suñu borom bu baax mu mu mu mu continuer ba suñu borom may ñu nawet bu bu ba barkeel mm-hmm. très bien mm-hmm. Mm-hmm. Ndoye Bane c'est que jërëjëf Fall maa ngi ko dégg opérateur xam nga dama bëggoon a xam ndax dafa def li yëpp di def tëb rek dal ca euh, nekk tëb rek nekk opérateur yor sa xaalis nekk opérateur au bien da nga mbappat ba nekk opérateur est-ce que jaar nga ci ay tool jaar mbay de paysan ba opérateur waaw foofu bon fa laa waroon a tàmbalee sax parce que. man sa njalbeen waaw man dama judd ne producteur. Oh. dama juddu ci bay. ah fekk samay bay ñuy bay ak samay maam ñuy bay ma juddu nekk baykat yàlla suturaal ma it ba mësuma génn tukki ci ay wuti dara bitim réew parce que am nañu ko yàlla nattoo mais man daa yàlla lii la ma nattoo mooy toog ci sama gox. sama terroir li ñuy wax ni sama village. lu may fekk fekk ma fa. mooy may bay ànd ak samay jur ba benn moment ma nekk gros producteur xam nga temps wu Sonacos yàgg na maam yi xam naa boobu xale nga. ay 85 86. soo bayee ba mën a jaay 20 tonnes gerte. Mhm. Sonacos daf lay agréé comme gros producteur. permettre la ngay jënd gerte nga indi sa gerte jaay ko mais nag di jënd gerte ci baykat yi la wër di jaay ci moom. Ah. loolu ci laa duggee man ci njëndum gerte mooy bay ba am loo xam ne dañ laa agréé comme group producteur nga di jaay gerte gi ba far nag nekk opérateur loolu opérateur bi euh, li ma leen expliqué mooy suñu fédération ñun FENOPST la du tudd FENOPST mooy fédération national des organismes privés stockeurs et transporteurs ñun ñooy jënd gerte yi di ko yóbbu ci usine bi di ko jënd di ko jaay état bi ay semences di ko jënd di ko jaayit étranger yi nga xam ni dañuy exporter. Mhm. donc ñun ñooy nekk diggante. usine bi ak producteur bi. waaw loolu it dafa laaj explication parce que bari na ñoo xam ne si problème boobu xaw na leen jaaxal ba des fois dañuy wooye sax ay intermédiaire Euh, waaye loolu lépp. ak facilitateur ak facilitateur mais loolu lépp ñàkk a xam. <laughs> naka la tëddee la. mais loolu lépp bëgg naa ñu dugg pour mu leer. Ah, man c'est le moment. man foofu laa bëgg a duggee. parce que gars yi dañ maa yónnee. Uh-huh. nee nañ mm. yéen ay dóorkat ngeen. Mm. ndax yéen yéen a tax ñoom mënuñoo jot ci état bi. Mm. nee nañ yéen yéen a tax ñoom mënuñoo jot ci li état bi di joxe. Mm. ndax yéen yéen a yor loxo bi nga xam ne yéen a yóotu jot. Mm. mu am lu ma jaaxal um sama bopp fan yëpp mooy opérateur semence yi. ndax yéen da ngeen a yor seen propre xaalis. man ma mi lingeer mu tëdd sama kër rek. Mm-hmm. Eva lebal ma un million ma jël sa un million wu doy baan mën naa dem jënd gerte joxe ko jiwu wala ndax yéen état bi ngeen di liggéeyal wala mbir mi nan la demee. ñaari question la. Mm-hmm. damay bàyyi ma développé ci ñaari mooy bi ma mm-hmm. njëkkee woon. bi nga ma fekk bi may proposé. bi nga may euh, bi nga may posé question bi. Mm-hmm. dama bëgg mu dugg ci foofu. àggale ci mooy ñun opérateur yi. Euh, amu amuñu monopole jënd gerte maanaam yoruñu monopole bi nga xam ni yow rek yaa ko war a def. loolu amul. d'accord mooy bu njëkk euh, état moo daan financé. loolu maa ngi lay wax ay années yu njëkk avant 85 avant 85 ah. avant 85 86 état mm. moo doon financé intégral ay union des coopératives ñoo fi newoon di jënd gerte état di financé mais bi état demee ba xam ni loolu moom daf ci am ay pertes yu lourd ay milliards lay perte ci xaaj boobu muy financé ci àll bi état daf ni mankat lii dama ciy génn damay wut ay privé ñu ñëw fi mm-hmm. di jënd lu waay jënd am ca dara ñu fixé ko at mu jot nag ak prix ba ñuy fixé mais fi mu nekk nii année booba 85 80 bi ñu koy door ñun opérateurs yi 10 pour cent la ñu woon ci système bi. bu doon point de collecte dañ doon 1000 ñun 10 points de collecte la amoon. d'accord état ni euh, union des coopératives soo pertee benn point dañ koy jox opérateurs yi. opérateur yéen tamit seen 10 points yi li muy tuur tuur su ngeen ci perte benn dañ koy jox union de coopérative. daal di àtte. léegi ci noonu la ñu def dawaluñ lu ma 10 ans ñun ñu nangu points yi union coopérative yoroon parce que dañuy perte te ñun suñu alal moo nekk en jeu suñu ay bien la ñu garanti suñu ay titre foncier wala suñuy camion wala suñuy bien lañ garanti ca banque bi pour am fa xaalis. Hmm. moo tax duñu ñu perte loolu. léegi nag bi mu demee dem ba nëgëni tey daanaka opérateurs yi ñoo yor parce que 90 pour cent yi. donc loolu moo fi indi opérateur yi d'abord ñu xam li leen fi indi. mooy historique mooy historique bi. loolu moo tax ñu ñëw fi mais jékki-jékki wuñu rek waddee fa la ñu non système bee leen soxla. ab système day dem ba soxla dara. loola ñëw. Mhm. loolu moo fi indi opérateur yi. Mhm. loolu jàll ñu ni règlement bi nii la prix au producteur dañ koy fixé bu dee at yi ñu génn deux cent dix lay doon. Mhm. ñu ni opérateur bi wala ku mën a doon soo jëndee gerte ci point de collecte bi. am nga sa marge bénéficiaire da quatorze francs cinquante. ñaari dërëm ak ñeenti fifteen ak genn wàll. li cool yi bari bari loolu ngay am. soo yóbboo gerte ca usine ba ñu fay la sa transport mënul ëpp douze francs mënu ko ëpp. léegi. Hmm. ñu ni baykat bi soo ko mënalee sa bopp fawal sa gerte nga yóbbu usine terewuñ la ko. gros bi soo ko mënalee sa bopp fawal sa gerte nga yóbbu usine ba kenn terewul waaye nag su ngeen ko mënul. état moom du bàyyi muy am vide. dafay teg benn opérateur. parce que am na petit producteur yoo xam ni. te mooy mooy rôle état. waaw jotiwuñ usine ba. Hmm. nañu waxante dëgg am na baykat yoo xam ne jotiwuñ usine ba. dañuy ñëw ci point de collecte jaay yóbbu seen xaalis. mooy rek ndóoy baan su amee oto it am na ñoo xam ne ca carré la ñuy dugg. Mm-hmm. donc loolu moo nekk ci àll ba aussi. léegi nag état noonu la organisé ba nga xam ni tey opérateur bi du moom dañ ko wax ne ko far force yow yaay jën déedéet ku bëgg na ñëw lañ wax. très waaye nag li munul am. mooy yow jëndoo te keneen du fi jënd. loolu mënta am boo moom mënta am boo waxee ma boo daal da ngay jënd waaw wala nga bàyyi keneen jënd. te jënd gerte nag làmmiñ du ko def. poosu koy def. Hmm? baykat <laughs> ah, def <laughs> baykat bi nag buy bay ku ko jënd see tax muy bay. Hmm. waaye ku taxaw fële di wax rek taxu ko di bay nag ku jënd si. ca boo xoolee usines yu nekk Sénégal. waaw li ñuy jot ci gerte. quatre-vingt-dix pour cent yi ñun suñu fédération bi ñoo leen koy jox état bi li ëpp ci li muy jot ci ci semence ñun ñoo leen koy jox. lu tax kon ñooñu. lu tax chinois yi xatal leen kon yenn saa yi. yenn saa yi ngeen taxaw nañ fi dugg damay damay damay damay bëgg a ñëw ci. laaj laaju mami <laughs> yow affaire semence yi ngay laaj. waaw semence yi moom bala cee dugg bala ngaa nekk opérateur état moo lay agréé ministère de l' agriculture moo lay agréé. Mm, très bien wu la mënoo nekk opérateur. Mm-hmm. am na nag ay critères d' yooyu nag mënu ma ko fee jeexal moom critère oh. d'agrément am nañ oh. moom bis boo invité ministre bi wala directeur agriculture dana la wax critères yi nga xam ni moom oh. moom lay tax mu agréé nit maanaam li nit ki di mat la di mat la yëpp ba tax mu mm-hmm. mën laa agréé mais man nañ cee jël benn bi nga wax rek ne laam nañ jëndul gerte du caagin opérateur yi rek la ñuy agréé mm-hmm. ah. opérateur yi ak union des producteur y de des producteurs yoo xam ne ci àll bi mm-hmm. ay gros producteur lañ yi am na yoo xam ne ay ay union lañ def ay coopérative yoo xam ni état daf leen di agréé ñu joxe jiw usine bi daf leen di agréé ñuy jaay gerte. donc ñun ñoo fa nekkandoo beneen bi ci des bi ma yeggale ko mooy. bu dee ci njënd mi pour ñu xam ni opérateur bi du du am benn monopole. point de collecte man moo Fall suñu ma yow nañu agréé point de collecte Tivaouane nga war faa gerte dañ lay wax ni association producteurs ya fa dëkk d'office lañ fa dañu leen fay agréé d'office mënoo leen faa tey jënd producteur ba moom gerte bëgg koo jaay usine ba mm-hmm. mënoo koo tey jaay usine ba mm-hmm. kon lu fa des mooy que bëgg a jaay ci ci opérateur rek moo moo moo fay. wax ji leer na. ñu ñu bàyyi la ak Ndoye Bane mi nga. xam ne waaw na bala muy bala muy jàll li taxoon li taxoon ma doon ma doon laaj question boobu. ay ca mooy xam nga li may wax ñi war a wax bu ñu noppee ñi war ta wax wax. te bu ñu waxee mu jaxasoo. ndax dañoo nekk ci réew moo xamante ne nii xamuñu joxoñ da ngay teg baaraam. te Cheikh Abdoulaye Mbacke sama yaakaar ju baax ja ne woon ma nga nee jarta wax silmaxa ndax du ko gis te mi ngi nii wax ko boroomi bët na yow yeb ko la ma xam ne mbir boo ko leeralee ci fa ko war a leeralee dina yeewi mm. ñenn ñi nga xamante ne nii tënku woon nañ ci ndax dañu am opportunité tey wax ak baykat yi ñu xam ne bunt bi fii la ubbeekoo au lieu ngay tëb ci fenêtre nga jaar ci bunt bi c'est ça boobu des na li ma la waroon tontu mooy bu ñu la ba pare am na ñu bari bari dañu wax ci rajo yi di wax ni opérateur yi ñooy joxe jiwu foofu dafa am benn sew sew bu fi ne. Mhm. moo di man suñ ma agréé en tant que fournisseur. waaw man du ma joxe dafa am ab commission. commune boo fi gis ci Sénégal ñu di fa yóbbu jiw ab commission moo nekk ca commune ba Ndoye Bane mi xam na li may wax. boo demee commune Pire. ab commission dafa sous-préfet ak wutal ko président. Mhm. man moo du Fall fournisseur bi su ma ñëwee bu dee gerte la bu ñu mën a yóbbu fa 100 mhm. damay indi 100 tonnes ci commission bi ñu réceptionné. su commission bi réceptionné ba téye seen gerte defal ma procès verbal de réception man ñu door a am droit commencé joxe jiwu kon xam nga man joxewu ma commission mooy réceptionné te commission bi bu réceptionné mhm. mooy xool ni ah commune de Pirley yi à peu près cinquante six villages la wala quarante six villages wala trente villages la léegi ñu convoqué chef de village yooyu ñu ñëw toog ñu leen am ngeen cent tonnes xam nga village yi tolloowuñu mhm. sous préfet génn rôle bi xam na population yi ñu ne village bi am nga cinq tonnes kii am nga 4 tonnes kii am nga troit tonnes kii am nga 2 tonnes ba 100 tonnes ya jeex léegi na village bu ne chef de la bu ne dellu ci sa village. Hmm. nga dem bindi sa 3 tonnes yooyu kan ak kan ak koy bénéficier. soo indee liste boobu signé ko indi ko ci commission bi. waaw ci la commission bi door na commencé liggéey pour joxe liste yooyu. Hmm. kenn ku ne la ci am nga xam ko. di nga dégg tey ñu ni dañu suñu dëkk ñun 10 kilos lañ ñu jox c'est faux. seko ba kenn du fa joxe 10 kilo nañuy def mooy. ñoom ñooy jox seen bopp 10 kilo maanaam mooy chef de village bi su ñëwee. am na cinq tonnes. waaw mu bind téeméeri nit. ñu ñëw kenn ku ne am cinquante kilo mhm. ñu dem ca village ba teg gerte gi ca penc ma dëkk ba di ñetti téeméeri nit ñun nañ ko séddoowaat ah. mbax parce que ñi mente ci seen biir. Mhm. waaw loolu nag yoonu commission ba. maanaam dafa am ñu ñu war a sédd ak ñoo xam ne sax dañ caa bokk. xëy na xam nga tey boo nee chef de village bi. waaw yow am nga fi. téeméeri nit. Mhm. yoo xam ne ku ne mën naa am cinquante kilos. waaw wala ku ne mën naa am cent kilos. moom mu ñëw ànd ak ñooñu ak seen i carte ñu defal leen ñu fob gerte ga yóbbu ca dëkk ba. waaw bu ñu ko xasee yóbbu ca dëkk ba. Mm. ñoom bu ñu ko séddalewaatee dëkk ba bépp. xam nga loolu yoonu commission ba nekkatu ci. Mhm. dëgg ñoom ñooy rafetal. waaw ñooy rafetal. Mhm. yoonu commission ba nekkatu ca. waaw parce que commission boo. dikkee dëkk lay doxee sax. noonu lay doxee boo commission boo dikkee bëgg ñu séddale ko par ay 10 kilos ak yooyu dañuy bañ. commission bi dañ naa ñun emballage yu cinquante kilos lañ yor te duñ ko teppi kenn ku nekk cinquante kilos lañ la war a jox minimum. wax ci wax ji wax ji leer nag boo mhm. déggee ko wax naa dix kilos la suñu dëkk am. Mhm. na xam ni ñoom ca seen village lañ ko mhm. séddalee. ñoo ko xaajaat waaye jëlewuñ ko ci seko ba. xam nga loolu yooyu yëpp dafa mat a xam. bu a liggéey bi noonu lay doxee. ñun tamit amuñu pouvoir joxe. opérateur yi. dañuy ñëw ci commission bi jox commission bi commission bi moom mooy saytu ay village am chef liste yooyu ñu approuvé ko ñu door koo commencé joxe ca commission bi président bi day toog ca procès ball de réception boobu ñu la defal nga téye munoo mënoo cee facturer il faut ñu defaat procès verbal de fin de session mooy jaay nañ ba pare manqué na wala manqué wul wala am na gerte guñ ci rejeté wala am na guñ ci rejeté wul lañ la ca manqué wala lañ ci rejeté wala la ci kiiwul doo ko facturer donc noonu lay. jaar na loolu ñu leen di jox loolu ñu jox baykat yi. dañ leen koy may wala dañ leen koy lebal wala. dañ subventionnel. par exemple tey su fekkee gerte gi dafa war a jar 300 francs euh, état bi daal ni man subventionné naa ko baykat bi léegi cent francs lay joxe wala 150 ren gerte gi li mu jar ëpp na 350 mais tey boo xoolee baykat bi quinze la fay ci gerte gi. cent quinze ba cent 165. ndax dañu ko boot pour waaw ndax la ca des état moo koy complété. ñun bu ñuy facturer. Hmm. tey bu fekkee dañoo jaay état bi 350. baykat bu jox ñu 175 le reste la ñuy facturer état. waaw ca procès verbal boobu yooyu nga xam ni sous préfet moo koy viser nga door ko mën a yóbbu ministère de l' agriculture facturer ko. Hmm. yooyu rek nga mën a facturer. ca boo dikkee ñoom xam nañ lañ la jox loo woon ko rombee dañ naan loolu duñ ko fay parce que joxoo la wuñ très bien. Mhm. Mhm. doy baan day mel ni rek Birane ñu ne dañuy añ assiette bu ne 1000 francs la. waaw ne moom supporté na 600 francs yi. waaw waaw c'est ku la joxe 400. waaw waaw noonu lay demee. ku suurul nag sa problème léegi nag su ngeen digganteeg chinois yenn saa yi ma dégg coow li bari lool ñu naan waaw chinois yi dañuy jënd gerte gi di ko yóbbu ak yooyu. waaw leeralal askan wi. suñu diggante ak chinois yi man ci sama xalaat baax nañ fi. Mhm. baax nañ fi waaye nag euh, waruñu leen permettre. lii ñu leen di permettre ñu ko def baaxul mooy chinois yi daaw. daaw dégg naa la ngay yuuxu fu ne de. waaw daaw xam nga état mu ngi fixé euh, campagne bi pour ñu démarrer def naa ni le 3 décembre xaw ba côté yooyu daal décembre chinois yi commencé bien avant ñun ñuy commencé. Ah. dañu ñëw rek dugg ci àll bi commencé jënd gerte. Mm-hmm. waaw man damaa jàpp ni bu ñu nekkee ci état ñu ni bet sàngam la ñuy commencé dañoo ñëpp lañu ñu war a téye ñu tam tàmbalee ndoo. waaw di jënd nu mu leen neexee la muy indi mooy lan mooy acteurs yi nga xam ne ñoom lañ fi fekk dañ leen di rey. Mm-hmm. lu mu jur mooy usine bi at mu ñu génn pratiquement usine yëpp boo leen boole vingt neuf mille tonnes la am ci année jiitu amoon nañ deux cent quatre vingt dix mille tonnes ci daaw vingt vingt vingt neuf mille tonnes la mm-hmm. tey étranger bi baax na fi xam nga lu tax mu baax fi man li ma jàpp mooy excellent la war a jël si. Uh-huh. mooy ñun suñu jëndee ba pare. waaw waaw ba ci fee bi fekk gerte des. Uh-huh. ñu ñëw ñu jox leen. waaye ñoom waruñoo ñëw di xëccoog ñun. Uh-huh. Euh, li nga xam ni usines yi moo war a alimenter usines yi war a jiw yi ak yëpp ñu ñëw di ko xëccoog ñun loolu man jàpp man lu war a am la. kon chinois yi baax nañ fa dañu dañu war a organiser affaire bi. prix bi benn la ci yéen ak chinois yi. prix bi léeg-léeg du nekk benn. te loolu it problème la parce que ñun. prix def ñuy tënk parce que bu dee ni usine ba temps nga fa mën a jaayee soo jëndee lu ko ëpp boo demee doo jaay mhm. waaw parce que état mooy fi dañuy fixé pris bi fii seeñaa moo koy proposé état mu mu fixé ko léegi bu ñu nee deux cent dix la ñuy jënd chinois bi dikk ni moom mën na jënd deux cent cinquante xam nga baax na ci ci at mii mais bu rayee acteurs yi fi nekk ray usines yi ray opérateur bu rayee opérateur ray usines yi boo liggéey bu delsee cent franc lay jënd parce que du fekkeen mhm. aussi du fi fecceen mhm. day fekk ñëpp dee nañ ba tëdd mhm. Mhm. donc loolu moo baaxul ci kenn ko na ngay protéger sam réew protéger say opérateur économique li am daaw mooy am na opérateur yoo xam ne dañoo leb la woon seen i gerte ci baykat yi waaw am na ñoo xam ne fay nañ leen am na ñoo xam ne fayuñu leen am na ñoo xam ne xaalis lañ leen mujj fay joxuñu leen gerte donc loolu problème la am na fi benn usine boo xam ni eh, leb la na lu mat 4 milliards mais mujj ko mën a fayu parce que sinon dañu ñëw jël gerte gi est-ce que Euh, euh, acteurs yi fi nekk te bu woon acteurs yi ñoom bu ñu fekk gerte bu ñuy jënd donc man li ma gëm mooy euh, ñoom baax na baax nañ fi bu ñu amee excédent ñu ñëw jël mais tant que amuñu lu ñu ëpp doole man gisuma nécessité wu ay étranger di ñëw di jënd gerte. matériel bi matérielu mbay bi. da daa ma ko laajal li mu wax nii yépp mami ma nga xam ne ma nga toog ca këram nekk koo xam ne consomateur la lan lay def ci moom. Hmm. waaw xam nga euh, consommateur bi. ak baykat bi. waaw euh, mun nañ am njariñ lu teew. mais njariñ lu continuer moo gën. Mhm. xam nga njariñ loo xam ne benn at lay doon wala ñaari at yam fa. Mm. dafa amul njëriñ. dëgg la du benn njëriñ. ndax tey boo xoolee li xew daaw. baykat yi gis nañ seen bopp naam. waaw ñëpp yéene nañ leen ko. ndax sinon dañuy ñëw forcer prix yi. parce que loolu li leen koy tax a man mooy tey boo jëlee fii matière première muy gerte boo xam ni kenn dugalagu ko ci benn usine. Mhm. kemb la buñ ko yóbboo buñ ko yóbboo siin du fay taxe. boo fa dugg du fay taxe boo boo booy boo boo ko exporté Chine xam tax Chinois yi def def loolu. tax bëgg seen usines yi liggéey du fay taxe léegi parce que ñoom seen main d'œuvre fële bële ba ci Chine lañ soxla léegi nag boo fi trituré nag gerte di fa yóbbu dëwlin wala nga du yóbbu torto da ngay fay taxe léegi kon ki ki ki nga xam ni fii dafa jënd gerte fii usine bii jënd gerte fii mënut a jënd prix bi chinois yi jënd parce que chinois bi jënd di yóbbu kemb du fay taxe mhm. donc loolu it dañ ko war a xool mhm. parce que ñoom seen bopp lañuy defaral foofu moo tax ñu def ko taxe free ngir mën a liggéey noonu la demee mhm. daaw tamit mu am beneen problème bu am mooy Chine dafa amoon problème mu gerte daaw parce que dafa daan dem États-Unis ak feneen di fa jënd gerte ca daaw dañ leen tëjal ay bunt foofu daanaka ñu fa am gerte ñu daw nag wutali Sénégal. ñu ubbi leen bunt yi. waaw ñun nag ñu dikk fekk fépp ñu sax bunt bu ñuy man nag balaa ndoy balaa jàll ba ca xol balaa ndoy baat di ñëw ci ci ci <laughs> machine fekk ñu fi sa bunt bu ñu ubbi. Euh, li muy wax yépp foofu la sama xel nekk. ah d'accord. mooy que yàgg nga dégg may jooy sunu réew mi tamit yuréet gi mu doon. Hmm. mooy que ñun daal afi. ah caaya la woon ñor ga dagg na day mel ne làmb ji amoon ca dëkk ba rek ba làmb ja jeexee ku nekk tekki sa ndoom ba wuti kala ne xam nga dafa am loo xamante ne nii nit sax du ko tàmmal ku dëkk ca bitim réew du ko tàmmal keneen ñun suñuy commerçant dañuy dem Chine bala ñoo jël seenu xaalis di ko yóbbu Chine dañuy sonn ñu di leen mbugal te deewaguñu ñu wàcc Chine dafa am condition yu ñu leen di tegal Chine boo xoolee ba ci suñu jaaykat yi li ñu leen di defaral sax booy xool léeg naka sudul noonu lañ ñuy jaay si mooy que seeni i desit rek seen i excédent comme nu mu ko waxee rek lañ jaay si mais la baax Amérique la baax feneen boo demee ñoom nga fay fekk ñu liggéey ko fii dëkk adduna bi dafa ubbeeku léegi ku nekk xam na ni muy doxee ñu wëlbatiku nag ñu ubbil leen sunum réew ñu ñëw dugg ci marché noir bi man par exemple immeuble bi ma dëkk ñetti chinois dëkk nañ fa mais damay dégg léegi léegi seen ay waxtaan ak xale yu góor yi ñuy àndal dangay xam ne ñoom ñoo ñu gën a xam sax biir Sénégal parce que fépp la ñuy dugg mm. dañuy dem di jëndi gerte gi di indi chaque jour seen oto yi ñi ngi dem ak a ñëw dañuy dañuy photo mi defar mami bu toog. non xam nga ñoom lenn rek moo leen actuellement muy ruu gi nga xam ne moom sunu borom a ko téye alaa ku lexaal kenn du ko defar. Ah, mais ñoom lu nu xalaat ak faj corona. Ah. mais lu nu xalaat lu nekk mën nañ ko defar. mais ñooñu bu ñu ñëwee ñoom lu ñuy amee la ñuy wut. Ah. mës naa leen fi wax ne am na réew moo xam ne nañu def ndànk ci ñoom parce que peine bi ñu war a tëj seen ay prisonniers dañ leen koy subventionné ñu génn ñëw ci sunu réew mi di jël li fi nekk di ko delloo fu ma waxoon fa taxaw ba tey parce que man jomb naa wax lu ma xamul ndax fekkewu ma démb nett nañ ma ko te tey maa ngi nii toog ñooñu ñëwul batikuwaat di ñëwaat di jëndaat ñun li ñu am benn suñuy baykat ñi ngi ciy am as waaye xam nga am yàq dafa fonkul ak ñàkk ndax am ko tey lekk ko tey ñàkk ko te am ko déwén ko gën mhm. ñu yaakaar ne foofu la ñuy yem ñu rey suñu ay usine ana ñu doon liggéey ci usine bi fan la ñu jëm chômage technique lañ jëm mhm. parce que gisatuñ lu ñu liggéey mhm. ñu wëlbatiku amuñu dawlin ñun ñi daan segal ci àll bi gisuñu lu ñu segal donc jur gi du huile d'arachide mënatuñu cee teg fu lu bët ah, ah. Ah, non dafa yokk parce que fan la jóge fa mu jóge ak fa mu daanu tey am na kër yoo xamante ne nii tey mënatuñu lañ daan dëwlin parce que kër gub liitar war a def nga dem ba cay def walaat te ñëpp a bëgg a mat liitar te faa walaat am ndax kii sóor kilo tax ñu dem ba nga xamante ne usine ba dana mujj tëj wala usine ba bu dañuy wàññi personnel bi xaaj bi ñuy liggéey xaaj bi duñu liggéey ñu yokk si woy dëwlin yi ñu doon jaay mu dellu si ci poosu sénégalais bi nga xamante ne mënul boppam ñu ne déedéeta waay ñu jël ñoom li nga xamante ne ñun tuut soosu moom lañu am yóbbu ko jur gi du ñu lekk ndax rakkal du am segal ma du doy euh, leneen lañ daan am ñu boole ko ci jël yóbbu dëkkee ci suñu kër yi ñun bu ñu waree fay benn kër deux cent cinquante mille ñoom mën nañoo fay quatre cent mille francs dëkk tey cest à dañoo dem ba réew mi la tegul li ñu war a teg ci yoon li ndooy baan doon wax teraanga Sénégal teranga Sénégal doomi bitim réew waaye doomi biir réew mi nappaaje ba mokk rek a dege ba comme romb nga mu mbraake jërëjëf Diop ma ko am na laajte yow waaw lu ma ko bëgg laaj laajte ci wàllum euh, matériel yi agricole yi nga xam ni moom la baykat yi ñu gis nii am na ci ñoo xam ne ca ba mbayu mbaam maam ma la ñuy bay bay ba léegi am te ñoo xam ni ñi ngi ñi ngi avancé parce que ñi ngi yor ay machine yu mag a mag a mag loo xam ni da nga ko daan bay ci une semaine nga ñëw bay ko ci benn fan wala ci ñaari fan euh, yooyu noonu naka la ñuy def pour baykat yi mën cee jot est-ce que hmm. yéen opérateurs yi yéen a koy wutax baykat bi ou bien hmm. état bi da koy jaarale ci yéen waaw loolu it comme ni ñu defee semence rek noonu lañ ko defee ah. parce que tey boo xoolee ministère boo fi gis bu dee ministère éducation ministère boo gis rek soxla na opérateur bu dee éducation opérateur dañ koy tabaxal ay école mm-hmm. mu leen di fay mm-hmm. bu dee beneen ministère noonu ñun dañuy joxeel état bi ay semences ak ay matériel agricole ak yooyu ak ay engrais xam nga état yorul gafaga gu taxaw boo xam ni day mën a daal tibb xaalis joxe. mën naa la ni tey nawet bi ñu génn ñun opérateur ñoo financé agriculture. parce que ñun ñooy lebal état semence yi lebal ko engrais yi lebal ko matériel agricole yi après nag état door a budgétiser nag tàmbali di fay ca année ba ca topp année bële waxuma bii année bële état mu ngi desal xaalis ba léegi. ci semence yi deux mille dix neuf deux mille dix huit deux mille jeexagul ñu dikk joxe nañ tey ren deux mille dix neuf deux mille vingt. bor du am rakk waaye daal am ngeen leen ay sët sax da koy am léegi <laughs> waxuma la rakk waaye ay sët <laughs> da mhm. mais xam nañ ñi état suñu partenaire la dëgg moo tax dañuy nangu euh, liggéey continuer liggéey bu ngeen ko defut it baykat yi suru voilà donc loolu it ñu man ñu xam léeg-léeg euh, du ñàkk sax opérateur yi am xëy na boo dajalee mbooloo ay quatre cent personne du ñàkk benn nit bu xaw a jubadi wala keneen ci corps yëpp la am. Mhm. moo tax léeg-léeg ñuy tiire ci opérateur yi man naqariwuma parce que euh, boo jiitee di nga xam ni mënoo dajale ay téeméeri téeméeri nit ci xam ne ñàkkul ku ci mas a fóot wala ku ci mas a def lu noonu loolu day nekkoon cat dugg waaye nag waaye li am mooy euh, en globalité opérateur yi moom wax dëgg yàlla acteur principal lañ. ci monde rural. Mhm. moo tax su may déggee nit di wax nañ fi jëlee opérateur damay ree ba tudd parce que noo leen fiy jëlee parce que ñi nga xam ne ñooy financer agriculture état ci ñoom lay appuyer pour financer agriculture ndax mënoo leen fay jëlee demal éducation nga jëlee fa opérateur yi tabax euh, classe yooyu yëpp. Oh, nga dem ci beneen beneen ministère def loolu. <laughs> c'est-à-dire dafa am ñoo xam ne ñëw pour financer. Oh. Mm-hmm. maa ngi koy wax ak benn euh, journaliste ku ma mosoon invité mu posé ma question bu doy waar. mu ne lu tax yéen opérateurs yi euh, ngeen am macha allah am na lu leen baykat yi amuñu dara. Mm-hmm. man ko bul comparer loolu. Mm-hmm. booy comparer da ngay comparer lu comparable. Mm-hmm. xam na laa ko. yow sa maison de presse bii nga nekk ki ko ki investir ba jël la est-ce que yéen a toll tolloo revenu mënul nekk. opérateur bi dem leb ay milliards wala mu leb ay centaines de millions. employé lu ëpp cinquante personnes. mun na yem ak kuy bay deux hectares wala trois. Ah. mais munul nekk. munul nekk ñu liggéey. moo tax mu ngi su leen a comparé. donc loo yooyu nag da ci am ñu ci def ay ay ay amalgame yu dul jeex naan opéra ñu seen 4 4 man ba may tàmbali en 87 laa njëkk a nekk gérant de Seco 87 22 ans la am boobu ba tey 87 booba saret laa yor saret fas mhm. saret fas daanaa jaay daanaa sëf mango foofu ci gaaru Tiwaawan bi dàmb juróom mhm. bu yor sama boîte condamné su ma wàccee dugal ci sama xaalis. <laughs> Mhm. yàlla di def sutura may dem ba am ab vélo mobilette moom mobilette bu neex sax. bu ne naa ne lool rek. da nga ka da nga nam ma dootuma am lu neexee nii. da nga ma waaw. moo jógee ca yàlla sunu borom def ma amub R4. waaw. R4 soxna si xam nga ko. R4 jógee ci am Mercedes Mercedes bawol bawol. Ah, ginnaaw ma am fi 4x4 double cabine. tey bu la nit séenee nga yor war ab Prado wala ab V8 wala yu mel noonu dañuy jàpp ne yow tey nga tàmbali. Mhm. fekk yaa ngi sa 35 ans. Mhm. looloo coono jaar nga fa nga war a jaar war a jaar. donc moo tax ma ne xale yi bu ñu yàkkamti. Mhm. moom laa la bëggoon wax fu ñu def ndànk. lan ngay wax xale yi. jaar fa ñu am na benn année benn dama koy dettali benn année tuuti ay bukki lekk ma ci àllu Saalum. boobu mobilette laa yor timis passé mobilette bi fay ci àll bi dama daw ba dugg ci ab dëkk sa sànni mobilette ba ci àll loolu lu ne xam nga lu ne xajoon na ci. waaw. nekk naa Saalum it yor sama Mercedes bawol bawol xaajo guddi douanier yi dàq ma. Hmm. ñëwumaa taxaw ndax xaalis bi ma yor ma daw ñu tiire ma. Hmm. mais suñu borom def sutura ma daw rek ñu dàq ma bu ma dugg ci benn dëkk ñu fekk ma fa. après ci lañ door a xam ni man opérateur la damay liggéey ñu ne ma loolu tey taxaw man leen ay bandi laa leen tegoon te muy dëgg li ma naan léeg-léeg da nga jóge Ndar di ñibbi si mhm. c'est le risque di métier ñu gaare la doo xam ñi la gaare euh, yooyu yëpp ak yi nga mënul wax waaw da nga ci jaar mhm. nekk ci àll bi nekk gérant di liggéey bunt bi ngay fanaan boo ko wexee mu daanu ca yaa ngi xaalis maletu xaalis mhm. nga exposé yaa ngi ci village boo xam ne y a plus de 3000 personnes ñu exposé di financer la xaalis devant tout le monde ñëpp di la xool nga dem tëdd sa néeg ak xaalis. nekkuloo en sécurité. nekkuloo en sécurité. donc yooyu yëpp na moo tax ma ne xale yi bu ñu yàkkamti. adduna euh, moom ndànk ndànk lay dox. petit à petit sama première sortie waaw. 85 86 ba ba ñuy football ak Caire. Mhm. maa ngi ci Blaise jaañ bi doon fi jaay jéem a jaay kenkaayel ba ma xamee ne lii du sama destin. dama dellu ca. ca tool ya sama mbay. Mhm. am na benn borom taabal bu ne woon sama buntu place ba may ñibbi di dellu ca village ba dañ dañ dañ woon kii moom dafa dof wéru <laughs> ba nga ne yaa ngi dellu dëkk waaw ba ma ne maa ngi dellu dëkk moom dañ kii moom wéru moom booy booy suñu <laughs> <laughs> borom ku ne la lam lamu namm ci yow mhm. ak la nga xam ni jàpp na ni mooy sa liggéey loola rek mooy mooy doon mooy doon sa liggéey bay li may wax rek mooy mhm. xale yi léegi nag gis naa ci yàkkamti boo xam ne si kenn xamul fu mu yam ak it duñ jàng métier. Mhm. waaw mais loolu laa bëgg ak it duñ jàng métier tey man su ma nekkee opérateur. Mhm. ma def gérance lu mat quinze ans yoo xam ne maa ngi gérer nit point de collecte mu di ma fay man su ma demee bañ may gérer point de collecte est-ce que kooku dina ma mën a ndax wala dina mën a am fu mu ma dugal ci. Mhm. yu lu ma mun xam non déedéet déedéet dama koy xam parce que jaar naa ci. su am na loo xam su ko defee bu ñëwee mën ko nii nga ko defee ak nii ak nii parce que jaar naa ci. xale yi dañuy bëgg a brûler les étapes. dañuy voilà dañuy dañuy bëgg a xale yooyu laa bëgg a ñëw parce que bi ñu demee keroog gis nañ fa benn jeune boo xam ne mi ngi góorgóorlu mhm. gis nañ ni àll bi tamit maire yeeg rek ñoo fa nekk xale yëpp dem nañu tukki bitim réew euh, ñii ñi ngi ndakaalu ñii ñi ngi ci ci grande ville nekk fa di liggéey léegi naka la ñu mën a def ban politique la mën a def pour mën a téye xale yi ci dëkk ba ñu toog mën a toog mën a bay euh, ba mel ne yow il faut ñu gëm ko Mhm. mbay xale yi il faut d'abord ñu gëm ko xam nga tey mhm. mënunoo imagine ku nekk euh, Blaise Diagne yor quincaillerie yi tëj ko dem ñibbi dëkkam mm. xam nga loolu tey ngëm-ngëm rek moo ko mën a tax def ci man def naa ko mhm. borom taabal bi ne woon sama buntu place laa ne dafa waxoon ne man dafa dama yorul man loolu yaa jàppoon moo tax man il faut ñu gëm d'abord que mun nañ tedd foofu ñu nekk il faut ñu gëm ko ndax man bi may dellu la ma fa bàyyi woon donc laa fay fekkaat mais dama ñibbi nekkoon na di bay ba ca mu kon na ci dugg ci njaayum gerte ak njëndum gerte continué ci loolu ba sunu borom ubbi la ci ay bunt ba suñu borom def la ci tey nga jiite ko mais ji xëyoo xëy jiite ko def nga trente quelques années ñu door laa teg ci bopp bi xëy na opérateurs yi ñi ma ci mag sax bariwul que bari na ay pas mais teewul seen xel dem ci man ba ñu ñoo kaay jiite ñu kon donc man baaxuma sax mais ñoom seen jëmi bopp am nañu am nañu mérite parce que nit ki bu ñu la jiitalee booy boo jàpp ni ñi la jiital moo la ñoo la gën waaye nag na nga fexe ba la taxoon ñu jiital la bu ñu la ci jéppi mooy nanga leen servir dëgg la na nga leen doxal seen ay itte <laughs> na nga leen taxaw fa nga leen war a taxawoo loolu bu ñu ko xamee rek wax dëgg yàlla euh, dana woyof ci ñoom mhm. ñu ko xamul nag day diis ci yow parce que dañ laa fal ba pare lañ doon séentu ci yow defuloo eh, loo doonul loo doonul taalibe moom pour nga doon sëriñam dina jafe mm. te kaala moom bu xëyee dem ci bopp dina dellu siwaat ci ndigg kon na njëkk ci ndigg soog a dem ci bopp mais man comme dañoo toll ci jamono yi ñu naan bay dundee ñu toll ci jamono jamonoy ku nekk delluwaat aada ak cosaan réew yi nga xamante ne ni ñun ci ñoom la ñu yaakaaroon sax ñoom ñi ngi daw di jël si ñun li ñu am ñu dalaloon fi soxna su baax soo xamante ne nee na moom actuellement ki nga xam ne moom lay euh, produit di ko jox fournisseur am bu muy jox moom dem na ba mënatul sax satisfaire ko kon moo lay wan que ne ñoom léegi xam nañ li nekk fi ba ñuy ñëw di ko jël si ñun autosuffisance bi ñuy xeex ak ñun ni nga xamante ne ni noonu la ñu war a jógee pour moom suñu bopp mbas mi war ñoo yee kañ lañ ciy bëgg a egg xam nga loolu dañoo tàmbali di ko luppe mooy gis nga gerte gi ñuy bàyyi étranger di ko yóbbu. moo dul yoon. gis nga état bi dafa war a taxaw dem Sonacos nga xam ne état moo ko moom ñun Sénégal yëpp ñoo ko moom ñu fexe état Sonacos di jot ci gerte gi di ko def dëwlin ñu fexe di ko jaay fii ci biir réew mi dëwlin gerte bi moo gën fuuf dëwlin yeneen yi ñu ñuy jox. Mhm. loolu li ko war a mën a am mooy dëwlin bii dugg si nii. ñu am nu ñu def ak moom parce que moom mooy concurrence diwlinu gerte bi ba du ñu mën a jaay diwlinu gerte bi. daaneel na usine yu bari. léegi nag mun nañu def système yi état mën a tëral bari na. bu ko kenn kenn bu ko neexee. kenn mënul ni xam nga diwlin bi tey boo nee Vietnam la dëkkit euh, ci kayit yi dëkku fa parce que Côte d'Ivoire bii lañ koy defaree. fa lañ ko nationaliser. Mhm. parce que lañ nekk. bu diwlin jógee Côte mënoo ci tous. Mhm. déedéet waaye nag. état mun na ni période sàngam man damay tëj pour jaay sama dawlin. Mm-hmm. mën naa am. waaw ñi koo xam ne bëgg nga quota dawlin pour jëndi il faut nga dem dugal sa xaalis ci gerte gi. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw. ba ñu jënd gerte gi ba dara du des ci loxoy baykat parce que baykat yi moom gaaw ñu jënd seen gerte boo jëndiwul gerte dugaloo say milliards wala say centaine de millions ci gerte gi bu may joxee quota pour ñu jënd dawlin doo ci bokk. loolu bu ñu ko defoon. tëralin la dana tax. Euh, financement am ci àll bi parce que nit ñi daañu fab seen xaalis dugal ci baykat yi dana taxit produit bi ñu teel ko mën a écouler ba usine bi mën a teel a jaay mhm. nga xam ne du dese gerte goo xam ne si du ko man a jaay donc loolu laa ni politique boobu bu ko état defee mën nañu jënd gerte gi dundee ko ci réew mi ca du am problème mu financement du ñu am benn problème mhm. waaye nag usine bi su fekkee nag ni dañ koo ni jëndal gerte gi ba pare mu jënd ko beneen dëwlin ñëw di ko concurrence di jaay. Mhm. deux fois moins cher que moom. day doy waar ah, day doy waar. yow gerte rek ngay def. El Hadj Modou ñun gerte rek la ñuy def ak ay ñebbe. Mhm. ak euh, ay mboq. fa la fa diggante ak jigéen ñi. Mhm. waaw est-ce que tey jii am na am na ay ci seen kuréel gi am na ay jigéen. Hmm. suñu kuréel am na ay jigéen. Hmm. am nay jigéen am nay maire am nay député. Hmm. Euh, bari nañu. macha allah opérateur nag nañ ko daan tànne bu njëkk. daaw ñu fekk kii yi rek ñu jël ko sa moralité daf si daan bokk da nga daan amus tuuti nag ndax jënd gerte moom as tuut la laaj mm-hmm. ndax ab seko moom boo ko ubbee mm-hmm. yóbbu fa 10 millions ba saagun du def ñaari fan 10 mm-hmm. millions waaw boo saagunut laan du fa def ñaari fan nga bëgg faa jënd ay weer <laughs> te doo ci yor benn doo ci yor ñaar doo ci yor fukk kon boo jënd gerte faw li ñuy wax ni il faut nga am ginnaaw il faut ko banque yi doy la il faut ñu wóolu la il faut ko banque yi mën la teg loxo. moralité daal di tax. donc loolu nag tant que banque nag xam nga moom xam nga mbiram moom bala laa mën a teg loxo ñaar dana la xam bu wér. danga da ko jox garantie. bu baax ci loolu nag damay potoxlu rek. Euh, nuyu euh, directeur général LBA euh, la banque agricole. muy Malick Ndiaye. Mhm. muy koo xam ne ku jàpp ci. financement agricole yi la. loolu sax mooy seen vocation ñoom waaye nag wax dëgg yàlla euh, mi ngi ci jàpp ndax lu tax. Mhm. daf ko xam. Mhm. xam nga boo tàmbalee ci ci agence yi. di yéeg ba nekk directeur général dara daf la dul ubb. Mhm. ba tax na moom wax dëgg yàlla lépp li nga xam ni moo équipe li ñu war a dimbalee Mondoral ñu ngi koy dimbalee parce que yombul da ngay financer huilier bi usine bi da ngay financer opérateur bi da ngay financer producteur bi chaîne bi yëpp ngay topp bu ci ne. da koy financé producteur bu commencé bay dañuy def ay GIE dem ci sunu banque bi di leen ñuy wuti ay jiw ak engrais. Mhm. bu gerte gi ñoree. Mhm. financement primaire yi nga xam ne ñun opérateurs yi ñun ñooy fopp xaalis yóbbu ca point de collecte ba ñun usine bi moo ñuy financé ne kii euh, banque bi ñu dem jënd ci baykat bi door a dikk nag jaay usine bi usine bi su amul financement man su ma ko jaayee du ma mën a fay te bu ma fayul du ma mën a dellu ci àll ba. pour jëndiwaan. d'accord loolu moo tax affaire bi dafa compliqué. faaw chaîne la ba fee fu taxaw rek. Mm-hmm. problème am ci campagne bi. Mm-hmm. bu usine bi fayu bu nekk da caa am solo. da caa am solo bu usine bi fayu rek chaîne bi taxaw. Mm-hmm. dëgg la bu opérateur bi demul ci àll ba chaîne bi taxaw. dëgg ah, problème mu loolu mooy difficulté problème mu suuf dafa bari ci ci ci ci àll bi trop trop trop trop yenn saa yu baykat yi. génn di jooy jooy jooy dañoo ñoo jaay doole jël suñu suuf yow mi nga xam ne opérateur nga tey yaa ngi nekk en contact direct ak baykat yi loolu lan nga ñu ciy wax. li ma leen di wax daal ci affaire suuf coow suuf mosu fee jóg mais day gën a ëpp du wàññiku nag. est-ce que day gën a bari xam nga lu tax man sama bopp laay jox exemple sama baay la mu amoon ci suuf yokkuwul ñaata doom la ñoom ñëpp suuf soosu képp lañ yaakaar ca kenn ko moomoon fukk ñëw yaakaar ko wala lu ko ëpp. coow li day bari donc. coow day bare benn la ci ci coow li mais du du loru rek. Mhm. bu boobu jàllee mooy suuf moom kenn xalaatu te tool dem ci toolu jàmbur ni yaa ngi koy laal te amoo ci ndigalul borom mënta am. Hmm? déedéet mënta am lii am mooy léeg-léeg da ñëw ñu jox la suuf pendant ay at boroom dem ba mujj yàgg la nga ko joxoon xëy na tuuti woon na tuut léegi tuuti na ci moom. wala jàpp na ne naxoon wala nangam mu dikk wax boo dee ku ku xëy na koo xam ni baax nga lool nga wutaat dara jox ko loolu nun ñi am suuf fële léeg-léeg ci lool la ñuy nekk mm-hmm. léeg-léeg am koo xam ni baayam moo moo ko joxoon baayub kee mu xëy xëy kële andi ci ay wax mm-hmm. ba problème tàmbali ci waaye li ma bëgg wax foofu mooy suuf amul kenn ku ñi mee dem fekk mm-hmm. suufu si jàmbur nga laal ko te borom ni jonn di taxaw amut man ngeen am accord boo xam nag man ngeen dem ba accord ba deñ loolu nag bu ma koy wax mooy suuf yi amul këyit waaye suuf su amul këyit moom yaakaar naa ni jël ko ci borom moom jaay ko doole képp la ca mhm. kero wax naa ni saa bu ñu demee ba nga am nga am carte grise dawal sa oto ba caaw ñu nangu ko ni la carte grise bi baaxut ne ñoo ngi ci danger mhm. bu ñu demee ba nit am euh, titre foncier defe ne am na titre foncier ñu nangu ko ne titre foncier baaxul noo ngi ci danger. ñaar yi moom tant que ñi ngi mi ngi am rek ñoo ngi ci danger. dafa mën a am dafay wane reflète day refléter doxalinu société bi. waaw mais dama ni ki am titre foncier. waaw naa ne am na suuf. waaw. juridiquement. pour pourquoi nga am gis ko am titre foncier ba ñu dikk dañuy nangu titre foncier bi. mais munul lekk kooku état moo fay waccaat xaalis ba mu dul jeex rek. ca xaalis boobu suñu xaalis la. Mhm. Euh, Euh, li nga xam ni ñun ñoo ko moom. ay institution la ñu wormaal ko. Mhm. li nga xam si ay këyit ay ndëgër laay la. yow boo bëggee tayle xam nga sa carte grise boo ko yóbboo ñu jox la xaalis tayle nga. boo yóbboo sa titre foncier. Mhm. ñu jox la xaalis bu ñu demee ba loolu boo ko yóbboo ca banque ba mën la amul valeur parce que ëllëg mën nañ ko retirer kon léegi nit ñëpp dañuy nekk ci problème. kenn xamatul moo tax ma ni suuf man jàpp naa ni saa bu demee ba am këyit. Mhm. man jàpp naa ni wax jëmatu ci. leer na àtte bi leer na loolu laa jàpp man su amul kayit nag a ah, négociation kii maa ko moomoon démb yow laa ko joxoon dama la koo tayle woon ainsi de suite lu ne nag joxe bu ne am na ci àll bi am na joxe boo xam tayle lay doon hmm. du jaay du maye du leble hmm. mooy da ngay jox ni benn somme mu ni la jox ma deux millions hmm. ma tayle la fii day am dangay nag da di bay ba saabu bu la delloosee lay xaalis ba nga jox ko tool. tayle boobu day am am <laughs> maanaam tayle waaw du am ab. Ah. mooy moom saa amee rek delloosee la sa xaalis. su ko amul rek nga continuer di bay. monsieur Fall li nga wax yëpp euh, ni ñi koy déglu. waaw ko dégloo dañ naan mbayum Sénégal amul benn problème baykat yi lépp daal RAS mais soo demee ci ci sur le terrain soo demee seeti baykat yi dëgg yi nga xam dañuy bay dunde ak bay jaay ci tuuteek yooyu. dañuy ba man ba mu juddoo ba léegi dama leen di dégg ñuy jàmbat ba mu juddoo ba tey mhm. baykat yi danga leen dégg rek ñuy jàmbat kon lan mooy problème li ñuy jàmbat moom kon lan la ah, waaw mais lu tey ba duñ jàmbat ci réew mi lañ bokk président yor ay teraanga di ko séddale ñu am ci wàll dañuy jàmbat pour ñu jox leen est-ce que ñi ngi ciy jot loo loolu ñi ngi ciy jot doy naam doyut kay la ñuy wax ah. waaye jot gi moom mu ngi am mhm. ndax camion yi sarse dugg ci àll bi xanaa doon ca teen lañ kenn du ni ca teenee lañ koy suti kon jot gi mi ngi am. ñi ngi cay jot ñi ngi jot. waaye nag doyut ku ne xam na ni doyut. loolu la maire bi wax état it nag day gunge. jiwu baykat bi mooy dencal boppam. état bi ñëw dolli ko parce que état bu ñu xoolee ren ji mhm. ak daaw ñi ngi joxe at mu jot ay soixante quinze mille tonnes soixante mille tonnes Sénégal li ñu war a soxla ci jiw mat na ñaar yoon soixante quinze mille mais état day li ñu joxe des na. joxe des na mais loolu baykat yi xam nañ loolu moo war a am mooy état moom mun leen jox liñ soxla lépp. dëgg la mais dana leen gunge ci dara. Mhm. ci état yi mënul fekk ndooy baan ci këram wala kii wala kii di ko jox déedéet état communauté lay waxal état su ñëwee ci commune Pire. munul dem ci village bu nekk ni ko am lii maa la ko jox déedéet. E- Eva bu beddee koo taxaw fee bokk déedéet day ñëw ci commune bi ni yéen commune bi kat am ngeen 100 tonnes. d'accord commune bi xam ni 26 villages wala 30 ñoo ko composé ñu woo leen ñu ñëw toog. seen chef de village yi toog ñu ni commune village bu ne am na nangam ñu dellu ca village ba séddale ji loola. loola nag bu ñu demee du doy. ndax xam ngeen ni village am na ci village yoo xam ne bu mel ni Sanjupi wala yooyu ay village bu mag la tey boo fa yóbboo 5000 5 5 tonnes. wala yooyu war ko séddale téeméer nit ca ñu ma ñeenti téeméer nit nekk fa. kon xam na ni problème dina am. waaye loolu lépp it da am na am na village yoo xam ne dañuy loterie na village yoo xam ne su jiw yi ñëwee dañuy loterie ki ko gañe bu déwénee doo bokk ci loterie bi yow. Hmm. keneen mooy ñëw <laughs> ba ñu daj. xam nga loolu it euh, pexe la. am na ñoo xam si bañ a ñaawal dëkk am na ñoo xam bu hmm. gerte gi ñëwee ñu jox leen bu ñebe bi ñëwee ñu jox ko ñeneen. bu ñàmb ji ñëwee ñu jox ko ñeneen bu beneen spéculation ñëwee mboq ñu jox ko keneen. waaw xam nga boo defee noonu mën naa daj. wala mu sori waaye bu ñebe bi ñëwee nga jox ko kenn bu gerte gi ñëwee nga jox ko kenn kenn kooku di am lépp léegi des des fois dina indi problème na mm-hmm. waaw li mu bëgg a wax mooy jiw moom mënu leen a fexe fexe bu baykat wax leen leen doy na parce que doyul. Mm-hmm. parce que état mooy doxale noonu mënul lépp. Mm. day gunge rek parce que bu budgétiser ni man tant de milliards laa mën a def ren ci agriculture. ministère day arbitré. danaan lii dama koy jël dugal ko ci engrais lii dama koy jël dugal ko ci aménagement ba ca vallée ba lii dama koy jël dugal ko ci matériel agricole lii dama koy jël na dugal ko ci semence kon foofu arbitrage la laaj mhm. moo tax du man a fob lépp rek jox ko ay jiwu wala mu jox ko lenn non budget du yokk bu ko président ne cent milliards nga am budget wala quarante quatre-vingts milliards nga am budget mu war a def ay aménagement war a def lu nekk mais day day day day kii day day arbitre day arbitre rek. Uh-huh. li ma bëgg a wax daal mooy sa question bi baykat yaa ngi jàmbat ni gisuñu waaye man loolu mënuma koo nangu doyaluñu rek laa mën a nangu. te doyul ñu dolli leen waaw ñu dolli leen kon na leen ngu waaj a dolli. Euh, ndoy baan xam naa waxtu bi sax dab nañu. Mhm. Euh, gis nañ boobu ba tey euh, góor yi ñoo fiy teew ndax am ngeen jigéen yu ngeen tollool daal yu ne ci mbir mi. Ah, waaw waaw noonu <laughs> nee naa la ci suñu fédération maa ngi nuyu Ami Ndiaye ñibbi député la. Ami Ndiaye ñibi ñibi ci mhm. ñun la bokk. baa bëgg nañ ko xam ma nga ci ci ci yi la bokk. d'accord am na yeneen opératrice yoo xam ne si. opérateur yi dafa bari ay niveau xam nga yàlla moyul moy ñëpp tolloo doole. Mhm. loolu amul fenn. te maa ngi koy wax dama ne toujours dëkk ba àll ba ak taax yi ñooyam euh, dëkk dëkk yi nii sax dañoo sutante. Mhm. waxantuma laa nit ñi ak seen am-am. te muy dëgg. kon nag loolu doxalin sunu borom la. ku ko xam noppalu ku ko xam noppalu. Mhm. si suñu biir mbootaay gi da ngay gis koo xam ne si sooy dem réunion yaa ko yóbbaale sa oto. Mhm. ci opérateur la comme yow amaana sax moo la mag moo la njëkk ci liggéey bi. Mhm. mais su borom a doxalee noonu. te yàgg da nga jur sa doom yow. waaw mag ko foofu jur ko mu jënd la ak say bokk. Mhm. donc loolu kenn du ca fekk yàlla. dëgg la moo ko moomal boppam. donc nag ñun ñi ñu àndal ñëpp nag kenn ku ne nanga nga tollool yaa nga ne defee. opérateur boo xam ne mën ngaa am ñetti point de collecte am nga ko ki mën a am téeméer am téeméer ki mën am fukk am fukk. Mm-hmm. noonu la ministère bi nga xam ne mooy agréé day xool ci loolu day xool kenn ku ne sa capacité lan la mm-hmm. mu jox la loolu mu jox la loolu mm-hmm. fii muy gën a feeñe dëgg-dëgg mooy ñun bu ñuy jaayee gerte ci usine ba xam nga tey usine ba noo fa yóbboo rek noonu lañ lay fayee da nga gis opérateur boo xam ne ci campagne bi jaay na tonnage bu day ni inna da ngay gis koo xam ne ñetti camion la fa jaay loolu la man dëgg la ok ki nga xam ne am na surface financière bu yaatu boo xam ne xëy na mun na ubbi lu mat cinquante point de collecte wala soixante wala cent mhm. du bokk ak ki nga xam ne ñetti point de collecte lay ubbi mhm. waaye ñëpp ci lañ bokk nag ndax wolof day wax ni mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk mhm. moo tax ñun dañuy ëmb ñëpp léeg-léeg sax am ñoo xam naa ñi dañ leen war a génn ci circuit bi parce que nii ñun daal du ñu doxe noonu boo dikkee ca Tivaouane euh, nga xam ni fa la ñaam bi fekk baax opérateur yu jigéen yi sax boo sàggoon ñoo ëpp yu góor yi boo demee am na benn arrondissement bu ñu arrondissement Mewane mhm. maa ngi nuyu ñoom Fatma Diouf mhm. ñoom Dior Ndoye mhm. ñoom ñëpp tey ay opératrices yooyu lañu yoo xam ne dañuy góorgóorlu ñu jox leen état jox leen quota ñu dem di jënd ay bant ñambi di ko takk di ko chargé ci ay camion di ko yóbbu réew ak réew ñu leen di fay ñuy dem def seen seen seen kër donc loolu yëpp nag mu ngi ci bu ñu yàpp rek ni Modou Fall mii rek moo ci nekk ñi nga xam ne si ñoom lañu ñu am na ci ay petits opérateurs yoo xam ne ay baykat yu ndaw lañ yoo xam ne ay opérateurs yu door a jóg lañ ca bëgg macha allah yàlla yóbbu leen ca kanam. yooyu nga wax nag la def pour jot suuf si yenn saa yi nga leen ñuy jooy di yuuxu fu nekk ni jigéen ñi góor ñi dañoo féetewoo suuf si. bàyyi leen ñoom si daal wax naa la mu demee. mooy kenn ku nekk. la sa bàyyi bàyyi. képp ca nga mën a bay. mënoo am leneen. Uh-huh. la sa bàyyi bàyyi nag nam bàyyee alal ak suuf noonu lañ koy séddalee. Uh-huh. mooy dañ koy miraas. Mhm. kenn ku ne la ca war a am nga am ko. bàyyi sa mbay wala sa borom kër bu bu bu fekkee nag man damaa bokk ak mami. nday ak bàyyi na mami di jigéen man may góor. ñu bokk euh, dix hectares wala cinq hectares. miiras moom mi bayu man may bay man maay feeñoo tool yi di bay. Mhm. Ah. moom nag ah ci la bokk waaye bay si ca suuf nag da ngay bay wala nga nga bàyyi kii bay. nga baylu <laughs> waaye léeg ñu gis mami bay siwul waaye ne la yemal fii bul jël la ca des. waaw loolu it loolu it mën naa wax ak moom sax jigéen càmmeñam ba ba ba jox ko lam ca moom waaye noonu lay demee kenn mënul dem ci suuf jàmbur daal di fa bay suuf si cool yi bari na waaye day gën a bari ndax ñi ko bokkoon dafa yaatu woon léegi nag ñi ko bokk moo moo néew. lu doyul woon kenn bu ko fukk dee seen. ndax xam nga tey ku mel ni eh, sama nijaay ma maamu wala Cheikh Fall moo ci kër xaalis jur lu mat fanweeri doom eh, ca. tool yi kenn nit a moom moomoon fanweer war koo bokk. xam nga fa coow am. yaa ngi sànni xeer loolu mooy li nga xam ne moo ci am. <laughs> Euh, waxtu bi daf nañu. Mm-hmm. kontaan nañu euh, di wax rek lan mooy sa dernier message euh, xam ni benn mami mi ngi toog wala Eva. Mm-hmm. li ngay wax intéressé ko lool bu doon jug rek di dem ne da cay bokk lan lay njëkk jàpp moom. waaw man daal li may wax mooy maa ngi woo baykat yëpp. ak sénégalais yëpp ni leen. waaw. àll bi moom mi ngi fi cay wax dëgg yàlla mbay mi baax na nañu ñëw ñu bay si ca bañ ko xeeb ca nangoo tàmbali ci suuf jëm ca kaw dëgg wax it opérateur économique yi nga xam ne ñu ngi dakaar mm. dañu dugg ci àll bi ñoom it ci lañu wax parce que tey bu ñu dee wax opérateur yi nga xam dañuy def gerte mm. ah ñun de demuñu Dubaay wala feneen ñi ngi fii ci gerte gi te yaakaar naa ni ñiy dem Dubaay wàcc fi gerte gi suñu xamoon ni gerte gi lu baree nga ca yaakaar naa ni duñu dem Dubaay kon daal li ma bëgg wax mooy na ñu ñëw ci àll bi bay si investir parce que wax nañ ko sànq bay dafa am mbay moo xam ne bay pour business la am na mbay moo xam ne da ngay bay pour dunde bay pour business da ngay jël lu mat cent hectares nga exploité ko waaw investir fa lu mat quinze millions wala yooyu pour bëgg faa jële dara loolu bay la war a xam pour pour pour pour business mhm. donc loolu li may tàggoo nag mooy sant sama mbokk opérateur yi ak sama mbokk baykat yi ci àll bi gën leen jaajëfal mhm. euh, gën leen wax ñu gën góor góoru ci tool yi incha allah ndax léegi tey bu ñu demee novembre rek décembre euh, novembre rek collecte bi commencé ñu commencé deqi gerte yi mm. commencé euh, mos di jaay ci gerte gi tuuti tuuti ba ca desit mooy fàttewoon naa ko wax sax mooy coowul mbappat du du du jeex ci réew mi toujours ñu ne baykat yooyu dañuy mbappat seen gerte gerte ku ko bay mbappat ko mhm. garab amu ci. da leen di fekk ñu soxla mooy mbappat mooy mooy jël jël gerte. du ko jaay ci jaay woo ko ci point de collecte ba wala xaaroo ba seko yu ubbi. la nga am kay ci yaa ngeeg say soxla mm. marché bee fi nekk doo fa jaay ci marché ba waaw faw nga mus ko nag te it ay góor lañu ay ñetti saaku ñeenti saaku ñu <laughs> leen koo tere d'accord ba fa daal dina am wax ji leer mooy waaye nag li ñuy bañ mooy opérateur bi mm-hmm. nga war a jënd kilo deux cent dix mm-hmm. ngay dem ca euh, luuma ba di fa mbapat mm-hmm. fanweer euh, kii ña fukk ak juróom ñett wala ñaar fukk loolu moom dafa ñaaw bu kenn donc maa ngi gërëm ñëpp jërëjëf Fall sant yéen tamit di leen gërëm bu baax a baax kon kontaan ci émission bi bégg nañ ci lool. jërëjëf a ji leer na di sant sama bi it moom it wax dëgg yàlla. <laughs> sama jarbaat la. soxna Linguère. waaw wax dëgg yàlla muy ku baax moom tamit. moom mi euh, toog. waaw baax lool. Ah. yéen tamit ñu yàgg leen suivre ci seen émission yi. waaw ngeen di def émission yu mucc ayib nag macha allah. Mm-hmm. donc Ndoye Bane taxuloon ñi miinante ñoo dëkk Pire mais taxuloon ñi miinante. mais miin naa ko ci presse bi. muy nit ku dëggu moom tamit. Mm. vraiment. macha allah kon daf boole ci ay cercle grand mi de moom dafa am ay grand yoo xam ne mooy seen booy. <laughs> waaw très bien jërëjëf Fall ma jox la kàddu gi. nga tàggatoo wallaay xanaa xanaa di am bala ngaa tëj. dama dama am sama xarit bu sore ci man. Mhm. boo xam ni dañu àndoon di liggéey muy sama mag. muy Cheikh Ndiaye soxna yàlla jële ko fi. Mhm. mu génn àdduna ci weer wala ñu génn. bi ñu mhm. bëgg tabaski. ñu la koy jaale sax waaw mu soroon ci man lool nag. Mhm. moo nekkoon euh, euh, chef de service achat bu Sonagraine. Mhm. ba mu retraité na dafa ñëw doon liggéey ak man. wax dëgg yàlla mu doon ku baax ku sori woon ci man yàlla moom ko. Mhm. maa ngi jaale njabootam soxnaam. ak ay doomam yëpp. vraiment suñu ñëpp nit la woon. Mm. la yal suñu borom xare àjjana. amiin amiin amiin Adja Linguère jarbaatu jàmbur. wallaay xanaa di am mbégte rek ñu la nga tàggatoo. nga xam nga tey ndooy daf may jàngal jikkoom xam nga. élève ma doon wax ma boole lak sa nijaay àggalil tàggatoo tey moom dara doo ko fi. Eh, kaay man samay nijaay nag dañ maa bëgg de. kër dëkk boobu kenn rek moo ma fa bañ muy meer ba fa nekk. moo ne dañuy wax ne maam yàgg naa yàgg yàq sët waaye jar euh, nijaay itam léeg-léeg mu yàq. yàq jafe noonu moom da yaayam looto yàggu kii wane yàqu ma de. <laughs> macha allah ay somnifère laa ko jëndal tegaleel ko bëgg a dem nelawal ko <laughs> aywa xanaa delluwaat di amaan mbégte rek wax dëgg yàlla am tey nag toog ak sama nijaay gis ngeen rek élève boo gis maître ba da koy jàngal mhm. ndooyu ma jàngal xarit bu mu am galgal la moo tax bi sama nijaay toogee ma roof galgal <laughs> waaye xam ngeen ne kii moom day sama nijaay Baye Cheikh maa ngi koy jox wàcc waayam tey ñaan mu yàgg fi lool lool lool te wér loolu te maa ngi lay nuyu yow itam jubawuñ waaye tey bàyyi rek ma sagal la nuyu la di nuyu sama yëmpaañe fa nekk waaye soxna maam Fatma Mbàkke bal lay sa buri sëñ Mbàkke maaram kooku nga xam ne maa ngi moom petit la mhm. maa ngi lay nuyu itam tonton Mët Dia tonton Mët Fall waaye nag sama bosu bopp tonton Abdoulatif yow kenn du yow kenn du yow ci man maa ngi ziyaar waa kër Baba Seye yëpp di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax demaan mbégte di wax ne lii ñuy waxtaanee lépp bëgg suñu réew mi dox la ndax ñun amuñu feneen fu dul Sénégal mm-hmm. mënuñu dem feneen te ku sañoon kenn ku nekk sam réew dafay ànd ak dal may wax ñi jiite réew mi ne askan wu gën a neex a jiite ngeen yor ndax mooy réew moo xam ne bu ñu suuree lépp ne tekk mm-hmm. ndax ñun dañoo bëgg jàmm te jàmm rek kay suñu mbokk mm-hmm. ñuy bayee ci réew mi des ci réew mi réew mi am lu ñuy liggéey sunu ndaw yi am lu ñu jàpp xale yi marchand ambulant bi ñu nekkee metti na topp ci oto yi dàq te doo jaay téeméer metti na te ku sa yàppum bopp réer da làmb sam kaang avant ngaa yéeg ca kaw jaaroon nga ci suuf te sonnoon nga lool mm. jàppale leen xale yi yàlla jàppale leen delluwaat di waxaat ne Thiat Diop yàlla na sa jàmm yàgg mi ngi ci 77 280 84 15 77 280 84 15 jërëjëf Adja Linguère kontaan nañu Eva Tra mi ngi remercier bu baax a baax euh, Calux Store muy Kanifal pour les beaux foulards dem leen ngeen seeti ko mu nga nekk au 77 533 89 89 77 533 89 89 takk un petit carré du ci yàq dara c'est très stylé et qualité bi qualité bu baax la dem leen ngeen xooli Calux Store pour seen yeneen yëf yu ngeen di bëgg sax mën ngeen fa dem ndoy baan waaw di sant di gërëm ñëpp di félicité monsieur Fall euh, opérateur ak opérateur yi ci réew mi yëpp. ak mhm. euh, baykat yi. dëgg la ngeen gën leen a jàppale rek am na solo. Euh, di leen tàggoo ba beneen yoon rek gis ngeen sama mbuum rek nii waa Pire may xaw a rey temps yi. Mhm. léegi da ngeen bàyyi bazin super cent yi ngeen di ñëw. trois pièces yi nii ko kenn toppatoo boo yi nekk Pire ñooy ñëw yi. rafet na waaw waa Pire yi Mooru nanga dem Pire.

37 95 li mu dëkk Pire la rek moo tax xam nga booy Pire moom dañoo. non mais yàq na la ngoog lépp ci ki lépp ci consommé lépp ci ci jaar yoon ba bëgg de dee na jaadu na kon bokk ñu ngi remercier bu baax euh, ñoom li remercier itam waa régie di leen wax ngeen bàyyi xel seen émission wareef ñu bare dañuy wax ne gisatuñu wareef akankay ah, wareef dafay am 14h30 tous les jours mhm. lundi jëm jeudi xam naa sax dafay doon yoon euh, njaga ci boppam wala Mia jël yëf yi defal ko benn euh, spot bu ndaw. bu ko mhm. defee nit ñi ñuy seetaan xam ne wareef 14h30 la léegi ci télévision Futur Média. Mhm. rediffusion bi Mia dina leen ko wax parce que loolu yëpp lu ñu bëgg a xam la c'est pour la bonne marche des choses. te wareef lu émission bu am solo la macha allah kii nag dafay xale boo xam ni dafa réer sunu doom la li ñuy njëkk ñaan mooy yàlla nit yoonam bu baax a baax ba nu mën a jotaat ci moom avis de recherche la u seenu Dione mi ngi dëkk ca HLM Fass foofu de mhm. suñu fief la HLM Fass Dakar euh, dafa réer mot na ñaari semaine euh, numéro téléphone bi nag mi ngi nii 77 la 402 61 00 77 402 61 00 seen émission wareef ma fàttali leen ko rek yéen a ngi koy am bés bu nekk lundi jëm jeudi 14h30 jëm 16h30 euh, bu ko defee ngeen mën a indi seen xalaat ci li ñuy waxtaanee sant nañu leen gërëm leen di kontaan ci yéen ba suba incha allahu taala.